jamono ji ñoom la ñeen fukki candidat ak benn yi nga xam ne nag dañ leen a rëkkale daal di teg gët fi mu toll nii nag li ñu bëgg mooy porter plainte ñii di waa conseil constitutionnel ndax la ñuy ŋàññi nag bokk na ca nañu doxalee ci wàllu parrainage yi laa séglikaay di ñu xamal beneen plainte boo xam ne rek waa conseil constitutionnel fas yéene nañu ko jot mu bàyyeekoo ci coowal parrainage yi ak li ñu validé wul ab candidature am moom Mary Teuw Niane ma ngay ñaawlu nag li bu dippee ab manipulation wala sax nag ay clé yoo xam ne dañu ko remplacer Mary Teuw Niane di xamle ne nag lu doy la ndax boppam nag kenn identifié wu ko ci fichier général des électeurs te moom nag ñaar fukki ngi nii bi mu tàmbalee voteek léegi waral nag mu jàpp ne loolee mënee su la nekk ci beneen wàll nag Mimi Touré di xam ne ni daal lu toll ci neuf cent mille ak lu teg ci ay sénégalais nag mënuñoo voté kon cas bi nag doy na waar ku jegi nag ña ngay joxar bi baaraam ñii di waa conseil constitutionnel enquête yëglekaay dippee ko les accusations des recalés jafe-jafe yaa ngay woy nag ci mbirum parrainage yi nga xam ne daal kenn gisu ko ci fichier électoral bi càmbar gi ñu doon càmbar lu jëm ci wàllu wàllu parrainage yi yéen ci ay rëq-rëq yoo xam ne rek nemmeeku nañ ko ci yër leen boobee yëglekaay lu mu ci mënti doon daal yéenekaay bi ma ngay xam ne nag ne organisation élection présidentielle yi défi bu rëy nag ma nga cay xaar kilifay Sénégal ngir nag lu jëm ci wàllum transparence ak lu jëm ci wàllum crédibilité yéenekaay bi di Sud Quotidien moo xëy daal di koy fësal ci xëtam bu njëkk évidence di ko feelu ni coowal parrainage ak scandale yi nga xam ne rek ñu ngi koy tudd boobaak léegi ndax élection yi nag daañu ko amal ci date bi ñu ko jàpp fang photo Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany Mimi Touré Abdourahmane Diouf ak Mamadou Diop Decroix mu ne recalé yi nag boo moytuwulee ñoom ñoo nar a tabb ki fas yéenee doon juróomeelu président bu Sénégal l'observateur dellu siwaat nag ci jiixi jaaxa yi am ci wàllu quitus fiscal bi risque yi nga xam ne rek am na ci ay fausse déclaration ay casier judiciaire pouvoir yi nga xam ne rek moom la waa conseil lu jëm ci wàllu piège yi nga xam ne rek amal nañ ko ci kaw ay candidature indépendante loolee lépp nag yéenekaay bi quotidien nag daal di xam ne ni candidat bii di Amadou Ba dénk na communication campagne ab cabinet français bu ñu dippee concerto yéenekaay bi nag ne cabinet boobee naam amul palmarès nag waaye jot naa liggéey ak ñaari dëkku Afrique mu di présidentielle yi nga xam ne rek doon nañ ko amalee ca RD Congo ak foofee nga xam ne rek moo di ca Madagascar bés bi le jour moom ab dossier bu yaatu la daal amal tey jii nag jëmale ko ci sénégalais yi nga xam ne rek jamono jii ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi yéenekaay bi daal di jëm ci xeexum drogue bi ci réew Sénégal émigration di tukki mu jaarul yoon bi nag rawatina wàllum montée puissance ak it gaal yi nga xam ne rek ñu ngi leen di gis saay su nekk ci waaxu Sénégal ñàkkum sécurité bi nga xam ne rek am na ci portières yi ak yeneen ak yeneen loolee lépp yëglekaay bi nag dellu suwaat na ci lu jëm nag ci wàllu tukki mu jaarul yoon bi nag yëglekaay bi nga xam ne rek moo di Vox Populi ma ngay xam ne nag ne Cominando Fronteras ma nga ca yuuxu wallu ci ab rapport boo xam ne rek fësal nañu ko di xam le yokkute gi ci limub doomu aadama yi ñàkk ci géej gi diggante 2022 ak léegi lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci téeméer boo jël ci ay doomu aadama faatu nañu ci géej gi yëglekaay bi di xam ne ne nag boobee rapport ba tey muy fësal ne nag juróom benn junni yu toftal juróom benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ci ay doomu aadama nag ñoo faatu ci atum 2023 wàllu tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale Vox Populi nag ma ngay xam xamle ci football beek wàccaayu gaynde yi ñeel kaan bi nga xam ne rek moom la ñu war a amal yéenekaay bi ne gaynde yi nag ña ngay tàmbalee miin température bu yàmm sukuroo ndax nag seen galop d'entraînement bu njëkk nag amal nañu ko ca terrain annexe bu stade Charles Konan Banny Alfred Gomis ak Bamba Dieng nag tey jii la ñuy fas yéenee dem nag fekk seeni naataangoo yéenekaay bi ne nag xibaar yi ñuy jot ci group bi daal jamono jii moom dal nam xel yëglekaay bi di record ne fi mu toll nii kay nag gayndey seen mission moom tàmbali na ca Yamoussoukro sunu lamb dellu suwaat nag ci coowal roi des arènes Lamine Samba nag di xamle ci biir yëglekaay bi nag ni dañoo war a amal ay tournois yoo xam ne rek ñaari poule la ñu koy def tànn ci juróomi VIP